ah bu ñu sante yàlla di ñaawlu bu baax a baax lu fi jot a xew ah, jaar naa ci hôpital militaire bu Wakam bu dem seeti suma jigéen ah, yàlla dogal gisuma ko mooy danaa ñëw fii ci Groupe 7 TV ñëw fii pour mën leen massu mën leen jaajëfee di leen di ñaanal nag yàlla gën leen kattanal yàlla gën leen yokkal sutura te ñëw tamit pour manifester suma soutien au monde de la presse mais di profiter tamit ci occasion bi pour euh, interpeller bépp patron de presse ku fi am télé am rajo am journal noonu nga mën a am sañ-sañ yëg jox sa micro ay nit ngeen xam ne ni seen xam-xam màcc na ci euh, débat yu ngeen xam ne ni moom la ñuy animé wax ci mooy lan moo xam tey ngeen jël ay chroniqueur yu ñëpp xam ngeen jël ay journaliste ngeen jël ay politique ngeen jël ay nit ñuy bàyyeeku ci société civile ñuy animer seen ay plateau en toute responsabilité te di wax tamit dëgg amul problème mais ngeen di dem di jëli ji ay nit maa ngi jëggu ci kaddu yi parce que su ma yaram lu may yëg ndax may ma doon fay dafa doon moom lu diis ci man parce que am na yenn euh, jëfini bu ko def ngay woote yow mi jullit nga wala ngay woote yow mi catholique nga ala kulli al yoo xam ban diine nga bokk wante yow da nga xaraam te ku xaraam yaa xam ban xeetu doom xam ngeen fu may waxee ma bëgg wax ci leer maintenant nag bu ci des mooy président Macky Sall moom la ñuy wax am na sañ-sañ diil am na sañ-sañ di ruube ci suuf moo su ko neexee wante président Macky Sall nowul am sañ-sañ di jël ay sambaabo yi ngeen xam ne ni ñoo doon dem di songi ay kër kilifa mais dañuy taal seen kër yi dañuy taal seen oto yi wala dem jëli ji ay nit ngeen xam ne dañuy yor cocktail molotov sandi ko ci ay bus rey fa ay doomu Sénégal ñu ne dañ leen di génnee ndax lan parce que soi-disant dañuy dañuy dañuy diil loolu mooy wax ci parce que tey jamono ñu toll nii dafa am ay nit am fu ñu bokk nekk dee dañu nangu kenn di wax ne ni que Macky Sall la ñuy waxtaan ak seen kilifa te loolu mooy dëgg ñu bëgg ko ak ñu bañ ko bëgg loolu mooy dëgg seen kilifa mi ngi wa ni ngi deal ak Macky Sall te ñun bu muy wax lépp te luñ ci xam doy na sëkk kon nag ku nekkoon big rek ci kaso bi nga génne démboo la bërki démboo yow mënoo xam lu xew ci biir réew yow nanga ànd ak muñ rek nga jéem a waxtaan ak sa mbokk yi xam fan teg sa sa tànk donc l'agression contre Maïmouna Ndour Faye c'est un acte d'une haute lâcheté c'est un nag barbare ñëpp ko doon la dénoncer et la presse doit assumer ses fu may daanalee mooy journaliste mooy par essence journaliste mooy ku am mooy dem fu kenn dul dem journaliste mooy dem zone de guerre militaire rek ay dem zone de guerre journaliste suy dem zone de guerre wutul poste député wutul poste maire wutul poste président wutul xaalis liggéeyam lay liggéey kon nag journaliste bu dem ba am sañ-sañ dem zone de guerre noonu nga mën a am sañ-sañ taxaw te wax dëgg yàlla tax ko deful nag naa fexe